di teg nuyoo yi ak ziara bu sa loxo ñu gënal ñu ko say rakk ak njaboot bu teew yëpp njaboot si daal man ñu sant yàlla nag bu baax bi ñu fekkee ndax kóllëre bi bu yàgg moo dox suñu diggante 2012 bi nga fi ñëw ci campagne électorale pour réew mi yow kese kilifa diine yi yaa taxaw fii lu coow bi mosuloo ma seetaan mosuloo ma bàyyi benn waaye ñu sant yàlla nag bi mu ñu mayee aussi di toog ba fii war a yeggali suñu liggéey ci anam lii ñu ko yeggali